kii di benn dëkk la boo xamante ne sunuy maam ñoo ko sos bi ko sunuy maam sosee mag ñi di ci góor góorgóorlu di ci góor góorgóorlu ba dëkk bi agsi fii bi dëkk bi agsee fii nag ñoo ngi ñaan rikk ngir yàlla ci autorité yi dafa mel ni dëkk bi dañ koo gannaawal ndax dëgg la ñu ngi defar ab tali bu jóge kër Mor Sarr jëm fii yal na yàlla subhanahu wa taala def tali bi àgg ci jàmm ba ñu dox ci ci jàmm dëkk bi natt bi fenn fu nekk ci penku gi un kilomètre la ndox ma àggu fa courant ba aggu fa loolu itam ñu waay ngir yàlla ñoo ngi ñaan autorités yi ñu góorgóorlu ca bu baax ba nga xam ni fi natt bi ak courant bi ak ndox mi dana àgg foofu